jërë ngeen jëf mbokk yi mbégte ak contentement la ñuy am heure bu ñu jàkkaarloog yéen rawatina yéen suñu mbokk internet yi nga xamante ni bi yéen ngi ñuy topp ci Leewtoo TV ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam di ñaan yàlla yàlla nangu suñu koor wante yàlla yàlla nangu seen koor ñu ngi ñaanal bu baax a baax ñu tawat nekk ci biir kër yi wala ñu tëdd ci lalu hôpitaux yi yàlla nañ jóg ñi caabi féetee gannaaw yàlla nañ fa génn wante ñi jiitu ci këru dëgg yi ñu ngi leen di ñaanal pour yàlla yóbbu leen ci ax janaam yu kawe ya dafa def déplacement ñëw fii ci Fass seet si suñu papa suñu xarit ba nga xamante ni bii kenn mënul tudd làmb ci Sénégal te doo ko ci boole muy maam góor gi Ndiaye ñu naan ko l'enfance chérie de Dakar di benn monument ba nga xamante ni bii lu bari def na ko ci làmb tey ñu seet si ko ngir amal ak moom waxtaan ci lépp la nga xamante ni bii jëm na ci làmb salaamaaleykum papa. maaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay nuyu. moo ngi fay di leen yàlla suñu borom bu tëdd aajo bi ngeen am yàlla leen ko yàlla defal si ni ngeen ko bëggee dafa leen ko ba mu gën si yéen jox leen ko te jàppale leen si barke Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam euh, papa du ñu def rek lu dul euh, dugg ci biir waxtaan bi euh, wax naa ko sànq nekkatoo ku ñuy présenté ci réew mi ñu bëggoon rek nga ñëwal ñu ci ban année nga duggoon ci làmb ak lan moo la duggaloon ci làmb papa. maa ngi fi dugg 1957 laa dugg si làmb booba temps jamono yooyu ay catégorie la woon ay catégorie da ngeen di concours la woon ku raw sa morom rek dem ko boobu loolu amoon amulul comme làmb nu mel léegi ba bokkul woon làmb léegi ñëpp ngi si kaw boobu loolu amuloon du jaar-jaar la woon boo xam ne da ngay jaar ngeen def ay. escalier la woon. escalier la woon. ba nga ba nga daan sa morom yëpp yéeg tam si mag ña dem rek loolu la amoon. balaa nga daan dem si mag yi da ngay daan sa morom bu mu jeex. war nga dem si mag yooyu ma amoon jamono yooyu. 1905 boobu ma lay wax a duggoon si làmb. di dem di dem di dem nag ba am ko benn benn bu ma doon koo xam ne ko Jibi Ndiaye la tuddoon kooku moom laay moom si mbër yu mag yi kooku laa jëkk daan si mbër moo tax ku ko dugg ma dugg si mbër yu mag yi moom nga njëkk a bëral ci mbër yu mag waaw 1954 la ko bokk 1983 nag laa bàyyi làmb sama combat bu mujj si laa bàyyi làmb Balla Gaye numéro 1 moom laa mujjee daan 1983 bi ma ko daanee laa dem màkk bi ma demee màkk bi ma ñëwee laa bàyyi làmb waaw man la li ma lay wax nii nag euh, maa ngi leen ne 83 laa bàyyi 56 li ma bëri si combat nag xaw na bëri tuuti. naa nga naan 86 ba 53. waaw waaw waaw 5 waaw. 83 56 ba 83. 56 ba ba ba temps ki daan tëggal moo doon wiyee seen fay seen seen biram bi maag moom ñoo bokk at bi juróom ñoo nekkoon loo xam ne ñoo màggoon loo ñoo defoon loolu la maag moom fu ma mos a bëri si lam moo daan fu ma mos a moo daan tëgg. 149 combats nag laa bëri. 149 combats. 149 combats yi am naa si 26 matchs nul. 26 matchs nul. am si 22 défaites. am 101 victoire. loolu la am si lamb rek laa def sama jaar-jaar loolu la. papa macha allah palmarès bi nekk palmarès ba nga xamante ni bii bu mucc ayib la mais. Euh, mën nga ñu dellu si waatal rek ci mbër yi nga xamante ne bii ñoom nga ñoom ñoom nga jot a bëreel ña nga xamante ne bii ay mbër yu mag la ñu woon. yooyu nag dama ko romb dootuma ko dootuma ma yu ma bëri bari. mbër mi mujj a bëreel nag dinaa ko wax. Euh, Mouhamed Ndiaye Robert. moom laa mujj bëreel. waaw. booba temps Fass ñetti làmba fi nekkoon dafa amoon làmb olof aada sénégalaise am fii làmb joolaa yaa ngi woon fii làmb tukkuloor yaa ngi nekkoon Fass ñetti ngay bëri ci ñetti làmb yi. ñetti làmb yi gis na bëri naa ci parce que dañ daan dem léeg-léeg bu fekk fële dafa xat fii fii ñu nawee ak kooku promoteur bi moo seet fu mu bëgg a teg yóbbu ñu fi ñu bëri ñu ko loolu moo tax fu muy yóbbu rek ñu fa moo tax Fass yi bëri nañu man làmb bi ma doon si face amul. ni nii xale yi di def di toog maanaam benn saison at lii mu nga bëri ci benn combat yéen noonu ngeen doon def wala at mi doon ngeen ci bëri kombaa yu bëri. man daf ma jaaxal nag loolu sax daf ma jaaxal ay weer ngay bëri ay kay weer. daf ma jaaxal. Hmm. waaye fi ma jaar si làmba kooku benn bërëb du hmm. jaar. si làmba. Hmm. dama jot ba dama jot avance booy Pambal. boobu temps Bassirou Diagne Maram Diop moo daan tëggal làmb ji jamono bi grand serigne de Dakar mu boole ma ak Boy Pambal ma bëre dimanche ma daan Boy Pambal altine talaata mu ñëw jox ma avance booy Bambara dimanche tey soir ma dóor Boy Bambara mbër mbër la ñaari dimanche ma ko maa ko bëri si wasaare ji nga dégg si bàq boobu dégg nga ko. dama daan booy bambal mm-hmm. dimanche. dimanche ñoom ma daan booy bambal. Mm-hmm. c'est-à-dire ñaari dimanche ñaari booy. ñaari dimanche ñaari booy. waaw yow rek yaa ko fi def. dimanche bee booy dimanche booy. booy booy bambal. mooy mm-hmm. bëri ak moom. Bakar dóor bàyyi ko muy jeex. mu sëgg di mbi ma dóor ko mu toog. mu waaxu tur ko xàcc di dóor daal. mu naan moom may utal daal yow ngay utal ruu. may wut a daan. moom ma ne ko man man moom muy ut daan man may ut wuu. Ah, maanaam boobu boobu metti woon. Ah, lool. bu ko dóoree mu daal loolu la wax nag rek man may ut daan dama koy ut sa ruu. taay naa si bool. waaw taay naa si ba ñaari dimanche ñaari bool. dimanche bee booy dimanche bii booy. booy Pambal booy Bambal. booy Bambal ba muy bëreeg moom dama kaa dóor bàyyi ko muy jeex. bu sëgg di war mbi ma dóor ko mu toog ba waxu tim ko xàcc di dóoraat mu naan ma may uta daan yow ngay uta ruur du ma wax di ko dóor ma moo daw boobu ba tey bi nag nga naan ma Yacine gaa ne xaw na maa dee noonu la noonu léegi naa sa ci sa benn bàkku tamit nga naan géej jóob ngóor soo soo bëgg ab ceeb waaw géej jóob moom sax arrêté Sénégal fii la nekkoon géej ju dee la làmb ji romb ma toog si buntu kër gi ak samay doom yi mu ne seex yéen yóbbu jaay jaay ni yéen jaay ni yéen seen xaaral yéen kii seen papa la mu ne ko mu ne ma waaye yéen ceeb la ngeen bëgg mu ne waaye yéen daal yéen yéen ma ne ko man mu ne yéen seen yéen yéen yéen jaay ni ma ne ko géej foo jëm mu ne ma làmb ji laa ma ne ko demal su ma ñëwee naa la tontu waaw <laughs> ma ñu xool ba ñu fa ànd géej bi ñu woon fi géej yëpp toog. mais mm-hmm. seen góor bi ma ne Aliou Géej Diop mi ñuy soow ma ne ko Géej Diop waa Géej Diop bëgg ab ceeb bu jeeg bay suur ba loolu basam toog mhm. bu jeeg ba jeexee mu ne teqet ree mhm. te buy dànk ceeb benn ku koy móol <laughs> ni nga bëggee ceeb ni nga mënee ceeb Géej Diop yaa sant <laughs> mu mel ni kon diggante Njaay ak Diop kalante bi yàgg déet dafa am loo xam ne nag seetlu loo ko nag mhm. weer bi gën a rëy si weer yi du weeru koor la ban moo ci topp. korite. bu ci topp. si si si si sa ki yàlla sàkk mu gën ñëpp mooy kan. juddoom ban ban weeru juddoom. gàmmu la. Seydina ma juddu mooy weeru gàmmu. boo lan nga siy teg Sénégal. yàlla def na ñëpp gàmmaluñu yaa ngi géejoo yaa ngi dégg mën a géejoo bu gàmmaluñu maag moom yor noo sant fay kuy sa gàmm am sant Diouf ak ñi weeru gàmm ñëpp gàmm lañu Sénégal li mu yàlla def Sénégal boo dee gàmm Sénégal ñëpp gàmm lañu na gàmm moo tax Sénégal la yàlla def def jàmm jàmm rek am Sénégal lu dul yàlla amu fi